Euh, kon ñu wéy rek ci bindu fiq ci muxtasar xalil waxoon nañ démb ne yurfau alxadas wa xukmu alxabas bil mutlaq wa huwa ma sadaq ala ismu ma in bila xaydin tey ñu ngi jàll ne wa in jumia min nadan wa in jumia min nadan aw zaaba baada jumudihi aw kaana suura bahimatin aw xaaidin aw junub aw fadla taharatihima aw xulita bi najisin lam yuxayir aw shakka fi muxayirihi hal yadur ndoxum mutlax lii muy waaj a wax nee na du ko yàq dafa indi mubaalaxa ci ne ndox mi baax na donte lii may waaj a wax sax moom la donte ndoxum mutlax moo xam dañ ko dajalaatoo ci ab lay dara newu ci ñenn sax nee nañ danañ jéggal bu fekkee benn ci melokaan yi dafa soppiku ngir dajale gi ko eh, dajale gi nga ko doon dajale dajalaatu ci ab lay ndax su boobaa dañ jàpp ne ndox mi rek moo li ko soppi mooy xaraar fam sax moo ko soppi loolu daañ ko jéggale ndoxum mutlax dana baax donte sax zaaba baax da yi day donte day ndoxum mutlax moo xam ne dafa wayoon ginnaaw bi mu sot mujj nekk ndox ruy seey moo xam moo seeyal boppam wala ñu seeyal ko nee nañ buñ ko seeyalee sax du lor donte tuuti da cee soppiku ndax dañuy jàpp ne rek euh, donte tuuti da cee soppiku aw kaana su urabaxit ni ki noonu ba tey ndox mi nee na dana des di nekk mutlax ndoxum mutlax donte sax day ndoxum desiti ak bàyyi ma suur mooy desitu naan mooy suur ci xadis yaa sharibtum fasaru donte desitu naanu bàyyi ma la waaye nag loolu sart bi ci am rek mooy nañ fexe ba bàyyi ma jooje du ko soppi ci lor yi ay loram yeeg yooyu génn ci gémmiñ bu soppee ndox moom ndox mu amatut solo baaxatut bàyyi ma bii nee nañ donte sax bàyyi ma yi araama lekk la comme ay fasak ci masab Malik wala ay mbaam ak yu mel noonu donte sax dañ ne bàyyi ma yi nga xam ne xeeti jëllaala la mooy jëllaala mooy bàyyi ma yi nga xam ne taakul jël la day lekk ay sobe yu donte yi lekk sobe la aw xaayidin aw junub ni ko noonu ba tey donte dafa nekk desitu naanu ko amee reegal wala ko amee janaaba xam naa ñaar ñi li ñu leen di moytandiku xam naa liñ sori ak jullee tax rek ak liñ sori jaamu ndax comme ko am reegal ko amee janaaba mënoon naa wax rek aw xaayidin wa junubin moo gënoon muy aw junubin kon desitu naanu ko amee régal wala ko amee janaba dara newu ci sax ñaari yéefar lañ doonte sax naankat sàngar lañ aw ba tey desitu laablu ñaar ñi ko amee xaayit wala ko amee janaba ko amee régal wala janaba mooy ndab li ñu doon ci sangu la ca des wala ndab li yoroon doon ci jàpp la ca des ndab li ñu sangu sax la war a wax ndax ñoom sangu mooy seen kon ku amee xaayit wala nga amee janaaba ndab li nga yoroon doon ci sangoo la ca des loolu dara new ci dana ñëw nag ndox moo xam ne ñoom dañ cee dugg wala yi mel noonu génnaat ca soppikuwut danañ ñëw ci kanam mooy loolu ca des léeg-léegi ne la dañ koo sib incha dana ñëw ci kanam dañ ko sib surtout bu fekkee da nga am maneen kon loolu mooy aw fadla tuxaaratihima aw kathiran xulita bi najisin lam yu xayir ni ki noonu ba tey wala muy ndox mu bari ndox mu bari foo ko déggee ci fu xaay mooy lu ëpp ndabul sangu mu jaxasoog sobe sa sobe sa soppiwu soppiwut cafka gi soppiwut melowoo soppiwut xet gi bu fekkee dañ ne ndox mu bari mu jaxasoog sobe ca soppiwu ko rawatina nag kon ndox mu laab mu jaxasoog so rawatina nag kon mu jaxasook ndox lu laab ca soppiwu ko waxi nopp wax gi mu wax nag ne aw kasiran mafhuma mi kon mooy bu fekkoon ne ndox mu neew la nag kon nan lay demee alal kon day mel ne kon benn la rek li gën a wér mu néew ak mu bari ñooyam waaye nag danañ jàng léegi ci kanam ne bu fekkoon ndox mi ndox mu néew la dañoo sib nga di ko jëfandikoo incha allah taala daañu ko jàng léegi aw shakka fi mu mughayyirihi hal yadur nekk doon ba tey bu fekkee ndox moo xamante ni dafa soppiku waaye nag da ngaa sikk sàkk ci li ko soppi ndax luy lor la wala lu lor la su boobaa ndox mi dara néew ci. ndox mi soppiku na waaye da ngaa sikk sàkk waxuma nag njort njort su boobaa bokkut ak sikk sàkk sikk sàkk moom moo gën a woyof bu fekkee da nga bu doon njort moom da nga danañ ko jëfandikoo ci a wér bu doon zann la waaye nag bu doon njort la nga sikk sàkk bu dee sikk sàkk dong la li ko soppi ndax li lor la lu mel ne nga ne ceeba ko soppi wala diw wala nangam wala nangam su boobaa moom nee na dara newu ci ndax mbir mi jamono yooyu dafa nekk ixtimaal bi dafa nekk lu woyof bopp moo tax dañ koy jégale ku sikk sàkk ci li ko soppi ndax luy lor la wala li ko sikk sàkk lu mel ne suuf la wala yu mel noonu lu ko dul la su boobaa rek bàyyil noonu bàyyil rek delloo ko ci ci ci ci cosaanam rek ci cosaanam ndox xam ngeen ne mooy laab billahi taala tawfiq